sur sa page Facebook. non man la il dit pas la vérité. merci à toi. El Hadj Diouf pour dire que El Hadj Diouf il ne maîtrise pas ce qu'il dit. le le département de Ranérou boobu muy wax mais c'est mais c'est Buntu bi qui a gagné. tout le c'est pas vrai c'est le c'est pas vrai. c'est pas vrai c'est Benno qui a gagné. mais mais Ranérou non le département de Ranérou. c'est gagné par le par par Benno. Ranérou c'est marron. c'est Buntu bi. c'est pas vrai. Ranérou c'est Buntu bi. Ranérou peut-être la ville mais le département de Ranérou eh, eh. c'est Benno Bokk Yaakaar. ville lan foofu amul ville Ranérou amul ville yow tamit lan amul ville yow xamul li ngay wax déedéet Ranérou ville d'accord alors amul ville yow déglu ma yow xamul yow trésor li nga xam ne amul ville amul ville département ba Ranérou déedéet Ranérou amul ville de Ranérou dama ne Ranérou département département rek la non non dama ville nga wax département sans ville ville nga wax ville non la ville waaw moom laa non non non déedéet non non non dama ne le département waaw man je nee na je donne les statistiques nee na Ranérou c'est gagné par par par bunt bi. Oudalaye c'est gagné par euh, euh, par par par par bunt bi. c'est gagné encore par bunt bi. et voilà. Théodore Monteil moom la la commune yooyu yëpp. non dama la. ils ont gagné les trois et le département loolu laa la bëgg a wax. léegi d'accord alors on va. non dama ne. doonu les chiffres ba ngeen di chiffres ngeen doonu les chiffres. dama ne li ma wax c'est archi clair dama ne. man li ma wax. Ranérou sort les chiffres. waxulul dëgg. tout Ranérou tout Ranérou. Ranérou la ba vrai. tout Ranérou a été maintenant le problème xam nga c'est quoi. le problème c'est quoi. waaw maître s'il te plaît. la mauvaise foi des gens comme El Hadj El Hadj aussi El Hadj il faut le comprendre. ton problème xam nga toi c'est quoi. yow d'abord benn El Hadj yow. tu es un politique boo xamante ni un politicien d' abord boo xam ne yow El tu n'es investi nulle part El Hadj yow koo faral ñu gagné ko. El Hadj Diouf ah, la faral di ko gagné non dama ne El Hadj Diouf. Ah, ku gagné benn que ça soit personnel aussi. benn la faral Macky Sall 2019. Macky Sall gagné premier tour. non non ci débat personnel. sa xabar xabar jéem benn 2022. dama ne gagné. waaw d' yow nga faral yambar yi ak dama ne. présidentiel ma duma la sëñ Saliou daane la local ma duma waat la. non yow fekkoo yow nekkoo fenn parce que. yow yow duma nañ la pas de parti. benn non non non tu n'as pas de parti. yow ñoo kan amoo fenn yow ñoo kan mais au moins homme politique yi nga xamante ne ñoom am nañ. non dafa ndànk rek El Hadj Diouf pas me divertir. c'est ça on n'écoute que toi. non mais il faut aussi que non il faut que se taise yow da nga mën a manipuler opinion. je ne peux pas parler jamais la vérité. il faut contrôler le débat il faut que se taise. manipulateur hors pair. sëñ Saliou. yaa ngi soog a mën ngeen a far. d'accord manipulation mais El gis nga nit wax dëgg dafa baax. El Hadj Diouf à dire la vérité. jamais la vérité yow xam la raconter des histoires aux gens. El Hadj Diouf su la neexee nga caresser parce que ça se comprend. on va vers on va vers un gouvernement. ça c'est des appels de pied. bu yeboo ñu ne premier ministre bu waaw mais dama defee premier ministre nga dee. alors si dama ne dama ne. non man maître maître maître maître moom njëkk a woo. c'est moi qui ai la parole. compte de qualité. je te nomme ministre. d'accord maître. boo ma yow yaa ngi taxawal jël vaccin yi. ministre des marigots. yow yi boobu ministre des marigots. waaw et des flaques d'eau. sa xel di yem. ministre des marigots et des flaques d'eau. waaw ministre des marigots et des flaques d'eau. waatu waatu waatu tànn ministre des marigots tànn. nee na waatu ministre. c'est ça xaaral xaaral xaaral sëñ Sall. c'est ça xaaral xaaral sëñ Sall. c'est ça xaaral xaaral. maître attendez maître maître s'il vous plaît maître. nee na sëñ Sarr xaaral maa ngi ñëw sëñ pour pour s'il vous plaît. pour que les les les les. maître pendant la saison sèche. maître seen micro yi seen micro yéen ñëpp dafa maître. Maître, maître, ce micro de maître, on t'entend pas parler, on t'entend pas parler. Non, maître, c'est. Sëñ Saliou xaaral xaaral sëñ Saliou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mënuñu nekk ci débat mënuñu nekk ci débat écoutez maître mais mais maître xanaa ah, di nga ma bàyyi ma wax di ma bàyyi ma wax non non maître. s'il vous plaît euh, je m'adresse à vous yéen ñi nekk ci plateau bi mënuñu nekk ci plateau bi mënuñu nekk ci plateau bi di waxtaan ak sénégalais te du ngeen déglonte non non on, ça ne marchera pas comme ça maître il faut il faudrait que ñu déglonte plateau mais yéen yéen ñëpp seen micro yi dafa tëju Cheikh sa micro dafa tëju sa micro dafa tëju yéen ñëpp seen micro dafa tëju maître t'es nul. non maître maître. mais oui mais maître il faut que il faudrait non maître xaaral rek xaaral waa xaaral xaaral maître dañoo nekk sur un débat organisé maître s'il te plaît on s'écoute waaw d'accord mais da ngay xaar ba nga jëlaat sa parole nga éclaircir li nga war a éclaircir mais non nañu dégloonte s'il vous plaît parce que peuple bi ñi toog seen kër di ñu seetaan quand même ils comprennent du ñu comprendre dara ci débat bi mais on s'écoute voilà maître may ko mu yeggali temps de parole am la dañ koy bàyyi mu yeggali après on revient vers vous parce que y a Omar Faye qui doit parler y a Cheikh Omar qui doit parler s'il vous plaît. Ranérou. département mais may may tamit ah d'accord département de Ranérou. Ah, mais vous le laissez terminer maître. même si c'est faux déglu même si vous êtes non non non non maître non c'est pas possible non dañuy dégloonte maître non on s'écoute waaw d'accord bouge-toi les oreilles si mais il faut ñu déglu on a dit union union union citoyenne buntu bi Amadou Diallo qui se retrouve avec 54,45 pour cent ñu ne Benno Bokk Yaakaar Aliou Demba Sow certainement c'est Dembourou Sow hein 44 virgule 55 pour cent mouvance présidentielle et le dernier c'est la coalition Wallu qui qui qui avec Mansour Diop qui a 0 0 virgule 0 virgule 90 0 virgule 99. c'est commune de Ranérou. union ville nga ville. t'as dit la ville. Eh, ban ville. t'as ville nga wax. ville nga fi wax t'as dit la ville. <laughs> ville nga fi wax ma ne la ville amu fa. du ville. non du. la commune n'est pas non du quand a parle de collectivité locale. kay non non non non le plan de collectivité territoriale la commune la commune la commune est de la ville. non d'accord dama a pas de ville là-bas. alors c'est ça Ndoumbélane li li lii mooy Ndoumbélane d'accord. mais c'est différent euh, à Dakar Dakar ak Rufisque. Euh, Omar y non tout de suite non non bu dee da nga yóbbu Cap Vert. je ne parle pas de ville en tant qu'entité administrative mais en tant qu'entité territoriale. d'accord mais bu dee Dakar nag nga gis. dafa am commune. am ville mais bu dee ay kaw la. conseil départemental ah mais d'accord. Ah. d'accord ça c'est une collectivité. c'est dirigé par le maire. merci maître. Omar Faye léegi bàyyi sa dëkk mu wax. bàyyi sa dëkk mu wax. de Kaolack. non mais vous n'allez pas monopoliser également la parole non mais laissez les gens parler également. les les les bàyyi non non avec euh, l'acte 3 avec l'acte 3 Omar dafa euh, lay indil éclaircissement l'acte 3 mhm. on a cinq villes. xaaral waaw dafa daal waaw mais bàyyi euh, ma non li ma on a cinq villes. ville Dakar. Eh, Pikine. Guédiawaye. bàyyi ko ma yeggali soxna si bàyyi ko mu lim rek. Euh, Rufisque ak Thiès. ak Thiès maintenant maintenant dans l'appellation dans l'appellation. non nag yéen yéen itam nag wax. yéen itam déglu leen après ba ñu parce que man li ma leen bëggoon wax rek. <laughs> bi ñuy indee trois euh, la région conseil régional léegi on parle de conseil départemental. par exemple le conseil départemental de Bambey le conseil départemental de tel de mais quand même dans le langage courant l'appellation parce que on dit commune dafay am commune mais ça n'enlève pas la notion de ville de Kaolack ville de Podor c'est très clair Omar Faye vas-y mu ne département mu ne ma amul ko amul ville da ngeen dul déglu